moo koy am na diggante Fallou Clando ak kii di Tass Yakar Fallou Clando Tass Yakar ñu ngi lewtoo Tass Yakar moo ñu féetee droite moo jógee ci xam sa cosaan mut ci Diallo Diallo moo ko dogatee waaye kii di Fallou Clando mi ngi jógee Fass Mbaw école de les Tigres waaw waaw waar bi si ne la génn seen diggante Tass Yakar mi ngi mujjee bëri jour combat Bombardier Tapha Tine fii la woon Boy daan daan na ko dafa mel ni daan na ko de dafa mel ni jël am na de dafa mel ni jël am na de waaw le grand nee na daanuwul daanuwul daanuwul daanuwul dañuy bëriwaat dañuy bëriwaat jël day leer jël day leer jël day leer jël bi dafa war a leer wàllu clando moo jàkkaarloo ñun waaw te seetaan moo ñu woon ginnaaw Daqui para o Cranon. Daqui para o Cranon. Daqui para o Cranon. Daqui para o Cranon. Atenção, está tudo o Doral Motor. Doral Motor, uau, uau, uau. Dele, dele, atenção, roubou nenhum. Roubou nenhum. Para o Cranon. Ahmed Tass Yakar ñu ngi lewtoo non roofoon ku ne am na ngemb roofoon nañu waaw waaw roofoon nañu ñu ngi dugal ay kuti ci fari attention fàqen na ko fàqen na ko jaxabal ba mbal na roof na ko jaxabal dafa mbal waaw waaw Tass Yakar dafa bare tey yaakaar ni Bouba moo yàq lambam mais nag boobu la gëj a daanu moom Boy moom tas yaakaar mi ngi tegale ay victoire waaw waaw arrêté na combat bi monsieur l'arbitre arrêté na combat bi ah daa blessé Malo Clando dafa blessé day dem day dem naani soow waaw waaw waaw day naani soow waaw ndeysaan day naani soow waaw waaw waaw day faju ji day dem faju ji naaniwul soow de day faju ji ndeysaan ndeysaan waaw dem na ci médecin ba day faj ci moom Fallou Clando bu paree ñëwaat tegaat ko ci. waaw waaw waaw combat bi na combat bi na attention Fallou Clando parce que Cardo foofu la ñu

moo ñu féetee droite moo jógee ci li xam sa cosaan mu ci Diallo Diallo moo ko dogal see waaye kii di Fallou Grando mi ngi jógee Fass Mbaw école de lutte les Tigres waaw waaw waar bi sifflé na génn seen diggante Tass Yakar mi ngi mujjee bëri suñu combat ba mat Tapha Tine fii la woon mais eh, attention jëlee na ko waaw waaw waaw da koy daan ba na ko daan da koy daan daan na ko dafa mel ni daan na ko de loolu li jëlee am na de. na de Fallou Clando nee na daanuwul daanuwul daanuwul daanuwul dañuy bëriwaat dañuy bëriwaat jël day leer jël day leer jël day leer jël bi dafa war a leer Fallou Clando moo jàkkaarloo ñun waaw te seetaan moo ñu woon ginnaaw te seetaan Fallou Clando génn mu ngi dugal ay coup ci Fary attention fàqet na ko fàqet na ko jaxabal ba mbal na rox na ko jaxabal dafa mbal waaw waaw da jàkkaar dafa bare tey premier combat am looloo ko xañoon digganteem ak Cargo dafa ñëw ne da koy saax-saaxe mu def erreur bu ndaw jël benn coup perdu coup ba moo yàq làmbam mais nag boobu la gëj a daanu moom boobu moom tas yaakaar mi ngi tegale ay victoire arrêté na combat bi monsieur l'arbitre arrêté na combat bi ah daa blessé Fallou Clando dafa blessé day dem day dem naan soow waaw waaw waaw day naan soow waaw ndeysaan day naan soow waaw waaw waaw day soow de day faju ji ndeysaan ndeysaan waaw dem na ci médecin ba day faju ji moom Fallou Clando bu paree ñëwaat jegaat ko ci waaw waaw waaw combat bi demaat na combat bi dem na attention Fallou Grando la Jakarta rompoon na ñu ngi xeex